maa lay fay. tey nan nga andee Jacob tey sa frère. Jacob daanaka dal ak teey rek lañ ko indee mais lépp lépp lépp bu arbitre bi soufflé liggéey lay wane du ko xaar ci dara ndax moom mooy xale moom moo war a jëm jëli moo war a def lépp waaw. képp gis ndigal boo xam te ne dafa décidé ci combat bi. ndigal. waaw min dafa décidé ci combat bi dañ ne coono yoo xam te ne mosu loolu na ngeen ko gisee. am décision ndigal gëj naa am décision. waaye ñun chaque jour dañuy entraîné mais du la jox combat la même pas deux mois wala trois mois nga kërti kërti yaakaar am nga doole de chaque jour ñun ñu ngi si duñ la jox combat rek bi tax la nga dem kërti kërti la yaakaar ne am nga doole de chaque jour ñun ñu ngi si chaque jour ñu ngi wax na léegi nee na combat bi si xel si bëre lay jeexee parce que dafa ñëw pour bëre loo ko daan ko ndigal lu mu reeree démb boo ko laajaatoon xamu ko lu mu reeree démb boo ko laajaatoon xamu ko Pokola moo ëpp doole Sokone moo ëpp doole. kii day bas kii day xaar day jàpp nag caaw kii day bas. combat bi si xeex la dana jeexee wala si bëre. si lépp bëre dóor la ñu wax. dañu gis temps yii maanaam yéen xeex la nga xamee woon mais grand ba nga ñëwee nëbb sa xeex daal bëre woon Sénégal yi beneen facette est-ce que mën nga xalaat loolu si Sokone. sa waay man année bu ma war a dem transport chef de wala représenté Dakar ci la blessé dama wane sama bopp li traditionnel day champion bu nekk mais gars yi ñoo jékki na ma bàyyi li simple bi kon naa teew si bëre dóor bi kon da nga am jafe-jafe combat man luñ man lu nekk si man si xeetu bëre waneeku ma ko yàlla baax na ko. ñu gis ko nga ñëw seen kër la nga xaw a tawat avant combat mais nga jël risque daal di ñëw xeex bëre. non loolu Fatick maa la woon rek li ma entraîné moo bëri si combat bi damaa wu maa tooyoon noonu rek xaw a tawat tawat du ndam gaa yóbbu ma sampal ay ay bideel rek loolu la woon. soxla ngi nii gisul lii lii ku mu doyatul amul leneen lu lay doy. mais récemment ñu récemment ñu déggoon sa diggante ak Boulal ba yéen ñaar doon ngeen ay cadre mu ne pare na promoteur la ñu xaar fa la ñu toog. na daa am si des tuuti rek pare naa pare na daa am lu si des tuuti ah aj kase bi nag wala. kase lan moo tax du ma aj kase bi ma bëgg a si oto yi rafet yi bëgg am si jabar yi rafet yi bëgg am si kankaat yi rafet yi a am si kër yi rafet yi comme loolu ñun du ñaay dof a dañuy neexal nii rek mel fu gars yi bëgg eh gars lu ñu am ay ñoom Modou Lo ñoom Balla ñun loolu lañ bëgg a am ba ñun daam ñu yaakaar si daam ñu nekk si ginnaaw yaakaar si ñun si ñun kase daam ñu nekk si ginnaaw yaakaar si ñun promoteur rek la ñuy xaar waa kay noonu la demee nag gars yi nag xool nag ndigal nay xool bu ëllëgee